dañuy wax ne waxoon naa ko fi waxoon naa fi ne euh, nañ def ndànk bu baax ci élection yi waaj a ñëw ndax dana bëri ay sacrifice man leen nag suñ demee ba jege ko danañ ci dañ koy junj rek waaye demee ba jege danañ ci wax xam naa dinaa ci xaw waxaale nag pour gën a wane preuve yàlla nag mooy dogal yàlla ay gis moo xam waaye nag yàlla am na ñu mu sàkk ñoo xam ne da leen di wan comme ni ma ko waxee woon ci deewu ndaw googu rek lii ba tey ci la bokk lii ba tey it génnut maanaam li ma waxoon ci élection yi ndax waxoon naa ni dana bëri ay sacrifice dana bari ay nit ñoo xam ne ay sëriñ ñoo xam ne dañ fiy indi ay sëriñ yoo xam ne dañ fiy indi ay jinne yoo xam ne bokkut ak ñun suñu jinne yéen yéen xamoon fii cosaanoo fi ndax suñu nitu yàlla yi dañoo am ay seen am na nit koo gis fii euh, mu muy nitu yàlla am nañ ay jinne waaye yan façon jinne la jinne yi fii ñi ma jinne yi ma fi gis man ak musiba yi ma fi gis ci élection yi maanaam ay yéefar lañ waaw ay yéefar lañ gis naa fi ay ngelaw waxoon naa fi ñoo xam ne dañuy def ngelaw lépp dara waralu ko sacrifice yi nga xam ne moom la ñuy préparé bëgg ko def ci élection yi ci rayu xale yooyu ngay wax noonu fi ne ki ko fi indi war koo def ñaar lañ te juróom-ñaari xolu xale lañ soxla faaw ma junj ko leeralu pour ñoom it ñu def attention ndax ñoom seen xam-xamu xërëm yooyu ñu yor ñun yor nañu xam-xamu baatin bu ko gën a foor kon nañ def ndànk ci loolu ci wàllu wi toujours yi mbir xale yi euh, yow boo amoon tey euh, digle bu nga xam da nga koy digle wala ñaan bu nga xam da nga koy jox waajur yi nga xam fi mu ne nii moom ñëpp seen fit dem na lan lay doon. xanaa di leen wax ne gannaaw bu ndogalu suñu borom waase rek kaaraange ak suñu borom di leen wax ne ku ko mën te jàng arxuraan mbaa ngay dégg ko jàng arxuraan suñ ko mënee kër gu nekk nga bind ñetti tabat yi daa wut xasum xay def ko ci ak ñetti paftan jox ko say njaboot sangoo ko xale yi dana leen aar. maanaam bu ñu génnoon sax def ko lu bon su leen gisoon seen xel mooy lot ci def leen lu bon su ko defee maa ngi koy baaxee waa réew mépp damay wax ne nag toujours buñ xool samay at buñ xool ne man mii sol lii rek nañ xool li ma yëg ba gis ko ak li ma xam ba di ko wax maa ko xam waaw waaw te fu wér laa ko teg.